yàlla bernde gii nu koy berndel ati at ci darajay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa salaam أيها السادة والسيدات السادة الحضور الذين مسمي عليهم الدورة الخامسة عشر لذكرى الصرصة النسخة الخامسة عشر لذكرى الصرصار التاريخي أسرة مام تيرنو آه السادة الحضور من جميع الدوائر الموريدية سخنة مام عيسى السيد البشير عمر رئيس الوفد القادم من دكار maa ngi ñëw yéen yëpp ku nekk seen sont ak seen tur góor ak jigéen di ñëw yéen yëpp du ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu du leen gërëm yi ñëpp ci bisu Sarsara bi muy seen bis Sarsara muy seen Sarsara ci njiitu ci nga xam ne moom niiw bi mooy sunu yaakaar bi euh, Cheikh Sidi Mbacke doomu Cheikh Mourtada doomu Cheikh Ahmadou Bamba mooy borom Sarsara mooy sunu yaakaar mooy borom Touba Mauritanie léegi njataay bi dama ko bëgg a gàttal trop parce que xam nga waxtu bi jot na léegi dama jox mbokku naar yi wax ji njiitu wax bu gàtt dama njiitu ci imaamu Sarsara mooy Mouhamadou Moukhtar Haydara mooy yaati الآن ندعو إمام الصرصارة محمد مختار حيدارة ليلقي كلمة تكون موجزة جزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم الحمد لله الذي بعث خاتم أنبياء